état bu Sénégal mooy wóyal réalisation yi mu sumb ngir sunum réew jëm ci kanam di teg ci marché financier bu UEMOA benn emprunt obligataire bu toll ci cinquante milliards de francs CFA. opération boobu nag liñ ci jublu mooy dajale ay koom jëm ci jëmmal projet yi ñu taxawal ngir investir ci budget 2015 bu Sénégal yen ñi ci bëgg bokk nag titre yooyu 10 000 francs la leen di dikkee ci fukki at ngeen am ci taux intérêt bu 6 virgule pour cent at mu ne ci li ngeen dul fay benn impôt ñeel ñi dëkk Sénégal yéen ñi ci bëgg bokk nag daw leen gaaw fii ba le wala ci impact Impaxis Securities wala ci bépp membre syndicat wu plasma yi ngir yeneen i leeral woote leen gaaw ci 33 864 97 97 wala 33 869 31 40 ñun ñëpp nañu àndandoo investir ngir ëllëgu naat.